donc yow dans à part Ousmane Sonko amul Khalifa Sall ne ne va pas engranger ton soutien Idrissa Seck du engranger son soutien euh, encore moins Amadou Ba. en fait dama la expliquer cest à il faut Sénégalais yi xam lu ñu bëgg maanaam mooy fu Sénégal toll Sénégalais yi amuñu intérêt def président Khalifa Sall. amuñu parce que système bi la c'est un produit du système. amuñu intérêt def. pourquoi pourquoi il était dans Yewwi Askan Wi avec Sonko et les autres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. waaw mais man bokkuma ci woon c'était pas mon cas man am naa fulla boo xamante ne bañ ma woowee écrit ta lettre d'adhésion et tout je me suis abstenu de le faire parce que man dégg li ma la wax anti système la cheminer du ma cheminer koo xam ne système bi la bokk maintenant nag mën naa ci am ay xarit et tout mais je suis logique dans ma position d'être un anti moo tax sama soutien à Sonko ma assumé ko nëbbu ma ko kenn. ñu ngi ma ciy xeex maa ngi ciy daj lu nekk maa ngi ciy dégg lu nekk mais je l'assume voilà maintenant je disais que Sénégal amul intérêt fal Khalifa Sall président amul intérêt fal Idrissa Seck président amul intérêt fal Malick Gakou président amul intérêt fal Amadou Ba président ni Boun Abdallah Dionne ni Mame Boye Diao amuñu intérêt fal leen président. pourquoi. parce que système bi lañ fi toogal te suñ fi toogee te maanaam c'est la continuité maintenant am na ñoo xam ne ñu ci opposition bi ba léegi teguñu carrément. seen wax ci système bi wala ci anti système. dañu war a déterminer ils doivent se déterminer maintenant nag Macky Sall moom mi ngi jouer.